gaay bis baa noonu ah bis bu spécial date bu spécial lu musul am fenn gaay le 25 février bii ñu jëm polygame ak yéen jàkkaarloo face to face fële ca Grand ñu ciy woo ñëpp di wax ni bis bii non ku ko raté à ne pas manquer ku ko raté raté nga loolu dul dabu mukk ci àdduna gaay dem naa le ça va très bien. yow lan la. Hmm? lan la. dara dama ñëw fi doon noppalu rek. non non non lan nga def ci kër gi laaw kër gi waaw def ma fi dara de. ah bu woo na ma. Ah, ñoom lan la ñuy oote. non ah kay parce que ñu bàyyi bu coow amee rek ñu oote. ay coow yu ndaw bu amee lan lañ ciy oote di di wax. léegi coow yu ndaw yi lan la. coow rek seetaan xam nga seetaan dafa doole. xam nga violation de domicile ngay def du dëgg yow bu la nit tooñee. waaw nga ñëw porté ko plainte. mais amoo droit di fajal sa bopp yow dégg naa bu bu léegi ne ma da nga koo kar di kaj ji otoom lu ne nga def ko ko waaw yow man bu man daal man bu yooyu yooyu ñu doon foo maa ngi moom fii papa ak doom affaire papa ak doom dooru dàqe loolu date bu moo gaaw a mer laa ila waaye xale yi day ah, xale yi rek est-ce que xam nga ni man moniteur laa woon moniteur da nga daan waay moniteur mooy ñiy formé nit ñi ah waaw waaw waaw waaw mën naa la wax ñaata personne a dee sama xam nga ci yan genre la. Hmm. nga taxaw magum jëmm di fenn. waaw ma xam ne yow li ngay wax nii ay fenn la. dëgg la xoola dama lay retaan la. wallaay dëgg la dëgg la te bu reetaande kon jooyal. la kay histoire la. lan nga joteeg bu. gi fi xale yi la rek gi fi xale yi ba léegi di ma romb di ma saaga di ma romb di ma wax ay wax yu ñaaw di ma wax ay wax yu yoo xamante ni kenn du ko wax kilifa tamit nañu waxante dëgg la ok ah léegi nag man intervention ci problème bi dama ciy a sonn. man naa ci. voilà léegi nag day jeex tey tey lay jeex. à partir de waaw vraiment ndax man. ndax mooy dernier jour bi nga xamante ne ci la ñuy wax ci problème. Mhm. xollu xale yi awa yooyu dootu abati. déedéet tey la yem. man kay moom comme ñëw léegi nag ni muy yemee tey. alhamdulilah confrontation bi ñuy def. Mhm. moom la ñuy def ci biir kër gi. confrontation. waaw dañuy def confrontation. mooy la da ngay toog awa toog di toog ma toog. ñu wax problème bi mu jeex. loolu jaru ko wax dëgg yàlla. non xoolal man may wax wax bu ñaaw. non c'est que leen di gaañ xam naa xale yi. damay taxaw ñoom ñu wax ma wax bu ñaaw doo ko mën a muñ sa xol yëngatu ñun nga du gaañ leen loolu laa bëggul tàgguwuma la de c'est juste pour aviser la. Ah, dama la yëgal d'accord pour wax la ni loolu laay def. yëg naa li ma bëgg tey. waaw mooy lépp day leer tey. incha allah moo ma gënal. du dëgg xollu ñàkk fayda li koy indi xam nga lan la. sa mm-hmm. mbambalu

tey de moom béy amu fi moom waa léegi kon la ngay def yow léegi yow dèjà de un ah kër gi dan ma koo tere ni ma doo fi dugg léegi looy def ci buntu kër damay bañ waa koñ bi xam ne man du ma dugg ci kër gi dan ma fee tere moo tax ma taxaw fii ku ma romb ni ma xanaa demoo ci biir ma ni maa ngi noppalu rek pour rafetal seen der rek ok loolu la rek loolu rek loolu rek la tey ngay changé ba nga dee de tey xanaa hmm. ah mooy yoon mooy yoon man mi maa war a changé hmm. man maa maa war a changé man mi man mi maa war a changé habitude man man wax dëgg yàlla man mi may il est temps ñu lijjanti moom ma changé vraiment dama ma billaay dëgg la dëgg la dëgg la léegi xale ngi ci biir n'est-ce pas defe naa ñu ngi ci biir de awaa ah, ngi ci biir defe naa defe naa voilà léegi nag yow yaay dem ci biir xaar ma ma jël sama bagage ma ñëw fekk la ci biir demal ci biir ah. demal ci biir nga xaar ma di nga changé tey xoolu dama xaar ma ci biir waa Badiane man de position bi nga taxawee xamal ni que je te comprends en plus aussi man je te soutiens ndax nag bàjjen neexul nga jur sa doom yar ko ba mu màgg yar ko fi nga ko war a yaree mu am éducation bu baax màgg war la jariñ wala màgg war a am benn chemin bu mu jël mu màgg jël boppam def ko marchandise ku ñëw jënd te nag euh, bàjjen xëy na paate bi mu fii njëkk ñëw man fekk ma fi mais nag fii nopp amul kubéer ndax lépp mu ngi sama nopp bi te yaakaar naa ni waa kër gi paate bu doon dugg si waat ci biir kër gi ñoom ñëpp dañu waroon taxaw def barrière digganteem ak xadi waruñu woon sax permettre paate di amaat ay contact bu sax bay déggante waat ak moom ba tey ñoom ñaar seen diggante di yem fii ndax ku ne xam na paate li mu def xadi bëccëgu ndaru kàmm la ko toroxal lii jigéen buñ ko def fi da ngay jaar suur góor ba faaw jël jigéen utiliser ko nu mu la neexee def ko ni papier wala mouchoir utiliser pare sànni tey mu ñëwaat ci waa kër gi yëkkati ko def ko mu mel na roi teg ko si chaise royale man bàjjen man comprendre tuma man waa kër gi vraiment comprendre tuma waaye Amina ni nga ko waxee xamee woo ko sax gis nga léeg woon ne waa kër gi duñu dara en commençant par ba ay nitu intérêt lañu yow au moins tu me comprends yow mën naa waxtaan ak yow xam nga li ci sama xol xam nga li ci xolu ndey ak doom nag kenn tooñu ma kenn defuma dara ku dul xadi xadi moo amul com xadi moo ma yërëmul xaddi moo yërëmul boppam ndax tey paate waroon na bu ko tuddee mu toroxal ko waru woon a sax nangooti am benn contagu gu euh, comme ni nga ko waxee ndeke mi may làqatu di woowanteeg moom di dégganteeg moom xadi moo ma wegul moo ma respecté gul te pourtant xadi munul ne man dama ko jàllax fenn wala ma sànni ko non j'ai toujours été là pour man samay doom dama leen a jël teg leen ci kanam di sacrifier sama vie ndax ñoom tey bu ma toogee ci sëy bi lu ma fi toogloo ñoom parce que xam naa ne tey su ma demoon xale yi ba mënu leen a yor bu leen yore tey ji duñu du ñu tekki dara ci àddina ndax moom la plus irresponsable être de ce euh, de ce monde man moom la man son irresponsabilité me dépasse de jour en jour ah tey ma rayante takk sama ndigg lu nekk def xanaa sàcc mooy yàlla rek laa deful li may wax sàccu ma de ma yàlla pour dundal leen je me décarcassais comme pas possible ah jël côté ko amee côté tey jii erreur ñëpp a ko def xadi def erreur erreur bi mooy ñun ñëpp a ko def dugg ci paate ba mu amee ba paate dem toroxal ma ci sama digg naw ndax damay wujjate dafa metti yoo xam nga di ci position awo metti na lool lu ñëw ñu xëpp la lu bon lu ñu def yow lañ koy def lu baax lu am ñu féetale feneen teg la nële ngay muñ rey sa bopp ndax say doom man sama amour ak sama bëgg ak sama lu ma bëgg ak lu ma bañ lépp dama koo teg nële rien que pour samay doom leur réussite j'en ai toujours sa mon sacerdoce waaye gis nga tey xadi taxaw na di ma toroxal. bàjjen déedéet. ah kay non te bul wax tamit que ni xadi respecté wu la bàjjen xadi ñàkku laa respecté de xanaa kay dafa fekk ni xale yi tey jii nii bàjjan seen xol la ñuy topp bu nu xasee ba bëgg dañuy gumba. tëxlu exemple bi man maa ngi nii toog yow mi nga xamante ni nag yow yaay waajur yow yaay kilifaam yow yaa koy comprendre bàjjan boo ne dangay bàyyi xadi loolu mënoo ko mënoo jur sa xadi mii ba mu màgg ba tooy ni nga ne danga koy bàyyi man daal lenn laa lay ñaan bàjjen nekkal ci wetu xadi xëy na nag instant bi nii topp na xolam c'est trop tard mënatoo ci dara mais yow essayer rek naxanteeg moom ba mu delloo si waat xelam man daal lii laa lay ñaan bàjjen mais ay waxu kanta damay bàyyi xadeeg dama koy teg fi moom ba teg ko ci suuf bàjjan dama la ko ñaan rek. ah dama soxla. waa xam naa doom bu la toroxalee nga bàyyi ko. déedéet bàjjen kenn toroxalu man de bu paatee ne salaamaaleykum ci kër gi bu fekkee wax naa ba sonn mënu lu ma xat dara fii lay dogoo moom. ay bàjjen ah kay lu ko neex na def man doom bu ma bëggee toroxal man xadi man daf ma xeeb. xadi daa bëgg rek bàjjen xolam la topp rek. ba ci lan xolam la toog xam nga mbëggeel am na fu mu lay toll bàjjen doo comprendre yow it bàyyi li ngay bàyyi li ngay wax rek xoolal yow fi mu nekk li ma la wax jege ko rek nga jéem ko raisonné waa delloo ci xelam mu xam ne si lii muy jëm nii du li ko arrangé te nekkul li la arrangé yow jeex na. Amina tu peux imaginer ma peine. waaw man je sais je Amina bi ma duggee ci loxo yi ba ba léegi ay frustration rek lay accumulé Amina ku ma gën a sonn ci àddina am na. dur à cuire certes mais par moment je me laisse aller comme pas possible. ok je sais mais ça bàyyi rek mu sedd Badiane. ma man sonn naa ba ci kanamu yàlla sonn naa boo demee ba sa doom bëgg laa toroxal aussi tegati lii lii am naa ci sa kanam yi mucc mm-hmm. fu ma jëm xam xëy bëgg a rey yoon ma noppal il veut se débarrasser de moi peut-être non bàjjen ma wax rek yàlla baax na yow toppatool xadi rek nga toog ci wetam di ko conseil di ko raisonner mu dellu si waat du dëgg nga bàyyi li ngay wax nii air mm-hmm. abattu bi nga am moom bàjjen doxul instant bi kenn xamatul li ngay nirool yaa du ko Amina tu sais lan nga ne mool vivant nii ci biir kër gi. yaa du ko ah waaye déedéet waaye bàjjan. tu sais il m'arrive d'implorer du ciel une pitié suprême Amina dama sonn j'en peux plus. ça va aller incha allah. salaamaaleykum. maaleykum salaam. père. waaw na nga def. ça va yaa ngi jàmm. ça va. sant alhamdulilah. biñ na laa gis nii. non temps yi liggéey ma tey aw ma jot. ah pour man da ngaa def ni gars yi sax dajale sowe ci bët gëm sa yoon. non loolu sama gars yi nekk États-Unis waxoon ko ñoo xam ne chaque instant dañuy dajaloo di jël benn xaalis dajaloo yónnee ma ko dama la a ñëw wala liggéey. mais dafa mel ni ñooñu bi ñu ko ñemee ba léegi ñun mënatuñ cee jot. ah man yaa ngi ci jàmm daal. maa ngi ci jàmm. ça va temps yi moom maa ngi ci produit yi am solo. man de temps yi génn duma sax sama daal. waaw moo ma sonal man depuis sama eh, eh, ñetteel bi ñibbisee léegi moom daa mel lu ma gañe ah billaay mais temps yii maa si benn produit bu ma yëngu tamit ñaari produit laa yëngu léegi. fi mu nekk nii boo xam ne moom. boo xam ne moom. waaw kër gi fii. waaw bis boo ko jëlee yaay doon seef da ngay nelaw doo ay ay ay seet loo sonal ay ballonnement doo ko am ba pare bu dee guddi gi ko naan moom moom yaay doon seef. boobu beneen bu génn. bu bees bu bees jënd léegi. ah. góoru Saalum. lim kii da ngay mëq wala nooy def moom. non kii ndox mu tàng koy boole ñaari kudd ndox mu tàng. ndox mu tàng. bu fekkee gud nga ko soxla pour. mu tàng mënul ànd ak meew ak ataaya ak yooyu. an kay ak meew mën ànd ak café. ñaari kudd ñaari kudd rek. boo naanee rek lépp ñaari kudd nag moom. déedéet wax mais waxuma luy di nga rakkaaju. mu fa laay waxee moo tax mooy guddi dee ko jël. <laughs> <laughs> xam naa la yow. léegi nag góor xam man li nga fi ñëw yëpp yow amu sa numéro. parce kii bu efficace doon na plan ah. ah il faut nga bàyyil ma sa numéro. jëlal sama numéro jëlal. waaw waaw jëlal man amuma téléphone yi. waaw waaw lu bari man. waaw waxal waaw. 77. waaw 274. 274. 09. 09. 6 ak 1. 6 ak 1. waaw 61. waaw euh, léegi xoolal. waaw kii jël ko nga xol billaay. waaw da ngay fay wala lay bàyyi. waaw léegi ñaata la kii. ci 6500. bàyyil ma bàyyil ma bàyyil ma essayé. comme d'habitude maa ngi sa numéro bi euh, euh, am na. orange am ne waaw jeex na. waaye xoolal fayu kooku ma de après waaw d' accord non day ñëw. ba kër gi mosuma fayee ko. yow en ah bon. kër gi kii mosuma jox kenn moom fay ma. lu waral loolu. dañu may def rek kayabaa yi fii fees del man de bokkuma ci. ah waaw ah, baax na. jeex na yow booy coow du jëm. caam kay waxoon dinaa raakaaju. caam waxoon ma doo fay nag. jeex na ok merci boy. gos bi lu ne moo koy indi. waaye kii dimbali man fii de maa ngi bëgg a dee. daa gisoo. lépp a jigéen ñi. c'est bon. xool ma bëgg mu leer tey lay leer de man pour man lii kenn waxatu ci jeex na bu yàgg ndakate yaa ngi dàqanteeg nit ñi di kar nit ci mbedd yi du kaj kar nga bu n'est-ce pas. kan moo wax. bu kunta karoo ko ci buntu kër gi indi ko problème kaj oto. woo nañ ma téléphone léegi nag lépp laa bëgg mu leer fii ndax ñii dañ laa yoreel xaalis di ma ko wax tey mu leer ñoom ndax yoreloo leen dara ñoom it dinañ ma lu leer naañ mu ñëw parce que loolu loolu foog ma rek la ko. man man may ma rek man di wax man laa xamul ñuy wax ñii wax laa man pour lan ñuy wax voilà kii faalewu ma ko. faale wu ma ko lijjantiwu ma kii sax man ay tënee ma kii bu doon gardien par la force réewu leen sax yéen maa ragal kii man taxee ngeen jeex de par force la par force la réewu leen sax ngeen defe ne yor sama xaalis noonu ngeen defe ne man man kii dama koo da dama <laughs> ay waay Sénégal neex na ok léegi xollu dama bëgg mbir yi nga wax ma lu mu demee carrément ndax da nga yoreel xale yi xaalis wala yoreel loo dem xaalis voilà xam nga xam nga situation nii lañ koy regle mhm. da ñëw seet les deux parties nga teg leen ñu toog nga laaj kan ne ku nekk nan lay deme mhm. man xaalis bi ba ma ca waxee yow laa ca gëj a wax kon toppoo leen kii dafa fekk maam ak papaam problème ah. mu ñëw fekk ma ca biti ma taxaw mu saaga saagaw ma nii publiquement nit ñi di ko dégg ay damay saa déedéet saaga yu njëkkee ay xale naan ma mm, mm, lii war na ma koo def kii kii war na ma koo def mm, kii ñëw fekk wax ji ni moom magam du xuloo moom mu taxaw di seetaan di ma dee ay saaga nday yu bon yoo xam ne ñaar ñii gis nga ñaar ñii billahi wa yow ñii nga war a waxal ñii liñ may def métti na ay saaga nday ay fekk ma ci mbedd mi may wax ak ay nit ñu naan triant la mooy tu ko triant la loolu la na man kilifa gu toll ni ma am na ay doomi toll nii Eh. Eh. man kër gi yàlla moo ma fi indi. dégg nga eh. may wooye may ma wax de tonton bi nam man dama lay wax sax ñun dañoo mujjee rus bi ñu lay woo di yàq sa liggéey. Hmm. ndax coow lii moom yow yaakaaroon nga ni jeex na waaye jeexul. gis bi nam kii daf maa war a bàyyi man sax laay wax tey ci suba dama doon dem di jënd mu dajeeg man ci buntu kër gi amul lu ma bàyyilul li ma gën a naqare nag mooy ak <laughs> di ma may de li ma gën a metti mooy ñun ay cagalañ ah. nee waa kër gi yëpp ay cagalañ loolu war na ma koo wax léegi man ba fekkoon ma ànd ak samay nawle est-ce que du ma sëw ruuj dinaa jarat dara ci kanamam léegi nag man damaa bëgg mu bàyyi ma te mu taxaw fii lépp leer mu bàyyi ma ci sa kanam ndax lépp lu mu la wax bu la wanee ginnaaw du ko def ñàkk mbokk daal samay wax dama koo waxul depuis mu dégg que ni man dañ maa war a maye amatuma jàmm ah war a may traité de tous les noms. fu ma génn mu ne ma caga nga moom daal moo caga la jël rek moom def ko comme ndoxu naanu kaay lu wax rek mu ne caga nga dan war a maye tonton danga war a dimbali parce que bi nga ñëwee fii bee paase nga wax ak moom mu ne jotewuñu dara boobu ba tey may ñu jàmm boobu la ñu gën a mën a kàr dan war a maye alhamdulilah ay waay yàlla na sëy barkeel waay ah. lii rek laa leen loon ay xale bu nekkee ci kër ba toll ci âge de puberté nan leen di maye ah yàlla na la yàlla defal sëy sëy barkeel sëy barkeel kii na moo dimbali leen ma rek mariage bi ngir yàlla ak yonente may leen ma goro gi ma jënd ko bino bino ngir yàlla rek wax ko ba nee ko ma jënd goro li ma bëgg xam nga lan waaw. defal ma décharge fii pour wane ni. xale yi yoraloo leen dara. yoraluñ la dara boog dimanche. décharge kay ku yor oto kay man yor. dama ne def décharge fii pour wane ni ñaari xale yi yor surtout ma ñoom dara. bind. waaw. lan laay bind tubaab nga bind sa tur man sëriñ xoll yoralu ma ñii. man yoraluñ ma ma français di. déggu ma ma français tubaab jàng ma tubaab de. lan nga jàng arabe de daan naa ko jàng. def ko arabe def ko def ko un saa un. waaw dam dam déggu ma bind arabe de yàlla xam na ko. yàlla xam na ne man moo bind ah, arab <laughs> man jàng gumba laa doon jàng. est-ce que xam nga ne boo yow fi ñu nar a mujjee xam nga fan la. xam naa ko kay. xam na fi ñu nar a xam naa ko ah. xam naa ko da ngay da dégg ay waxi nit nga gaañ ma ci erreur foofu ren nar a mujjee xam naa ko <laughs> militaire bu reetaane rek ñu waaj def musiba. <laughs> ok ni ma bëgg nga déglu ma fii tuuti. déglu ah déglu hmm. yore luñ la dara yi. yore luñ ma dara. wala aram si kot ñi kay samay doom dëgg laa leen def samay doom. faalewu ma ko faalewu ma ko lijjantiwu ma kii sax man ay tënee ma kii bu doon gardien du ko sax sama xarit ngeen ma ko génne par la réewu leen sax yéen ma raay ki man audio bu yàgg bi yaa ngi ko gardé ba léegi nettali xuloo xuloo la eh xam nga lan dama la nga toog déglu ma dafa xam nga lan man du ma sa morom pour yow ñun soldat dañoo dof dama doon jële bi jëliwu ma woon dara bi baa ngeeg man maa la piège affaire kabale yooyu mooy lan xam naa ko kay tey nga mel ni suba nga mel na le pour lan la la mënoon nekk nit. eh wàccal sa loxo yi nga tëgg nga xool ba fii xam nga lan la eh. non maa ngi xam nga li nga def mu tudd. mën nga jooloo ci kanamu xale eh, yi amul mën nga jooloo ci kanamu xale yi affaire escroc yi mooy lan. escroc rek. bu ma la dëggatee ñu ne topp nga xale yi ci xaalis ma ak yow la. yaa ngi déglu ma la dugal nga baalu xale yi àq acca acca. baal leen ma àq. ne ko bal naa la. dugal nga génn kër gi dégage bu ma la gisati nga kar ñi ci mbedd ma eh li nga def ni mooy lan yow. dama doon comédie. ma fonto Amadou ba sa morom booy kokkali nga ay comédie affaire yi mooy lan xam nga lu ma bëgg xamal yéen xal ah. arrêté leen seen ci koy mbaraan ji xaas jàmbur ngeen di laaj pour lan la. xam nga kii mën na leen a rey. man man man de xoolal mën naa la expliquer. soxlawuma nga expliquer ma. dama lay expliquer xam nga ñëpp comprendre. lan la man wóor na yàlla xaalis bi laa dama koo jëloon noonu te ko rek di ko xool waaye laaju ma ko woon pour dara de ah moom mii moo ma doon ruux. ah. Eh, gis nga problème mu mbaraan bu ma ko déggatee seen biir yéen ñi yéen ñaan ñëpp dama leen defeere dégg nga. defeere dégg ngeen ni ma la xool dégg ngeen yéen ñaan ñëpp laa wax leer na wala leerul. boo bëggul nit ki bu laal xaalisam affaire mbaraan yi arrêté leen ko bu leen ma wooti yéen ci intervention yu mel nii leer na wala leerul déggal sugu leen fii ngeen dem acca salopard mu leen a bàyyi seen farantugu bopp gi xool yow daal paate man fii dëbb naa ko ba mu mokk ni la fii xeex mën naa la koo wax tedd li si bàjjan la benn moo la fi xeex di la fi gasal kam moo côté yeneen côté yi maa ngi koy réglé yow yow nag yow foo nag booy bi jooy na booy bee dagg ci yow toog naa moom wax ak moom wax na ma li ne ci moom yëpp nee na ma kii dama jooy ci moom dama ko nopp ndax neexut a bañ lii la ma xale bi wax waaye yow nag da ngay gaañoo nag kër gaa ngi wàcc moom loolu moom jeex na man dëbb naa ñëpp ñee ñëpp tuur naa leen lëndëm force la mariage force la danga koy jëlaat force sinon man maa koy këfal nga xool foo ko yóbbu man sama yoon nekk je m'en fous lu après coow la ci man lay ñëwaat waaw gërëm yow eh. eh, ngi en ligne la woowaat incha allah. ciao ciao frère. nan la yow. <laughs> sa yére bi laa doon tëjal. waaw lan la. sa woon moom fa pare léegi yokkal mën nga duggaat ci bi wala nga xool foo jëm. <laughs> yow kon de yow yaay màkkaru xale bi innocente bi ci kër gi yaa koy màkkaru ak paaka. maa tey dalaa naqari. yow daal danga ci am yow ak yow ak sos yow ak dajale ba ici repose. ay ndey teggi sa tànk sa yaan nga ci kër gi. ndey teggi sa tànk. ndey oto wat adada. xaw loo may sa pooleel njuub yamal laa la wax rek leen. Eh, adada ak adada laa ci yemale hmm. daa am fooy dem doxal sa dox nga bàyyi ma ma kuul sama kuul moom lan nday oto wat lan la léegi macro xam nga ni kii yaayam nanguwul nanguwul bu nanguwul kër buum mi nga nekk bu may fay gi di jox ngay bii nanguwul hmm. te doo mu sedd ah pourtant ba ngay ñëw yaay bu nanguwul bàyyi bu nanguwul bàyyi bu sa nangu na ay tante bu nanguwuñu maag bàyyi bu doo nga fi nangu woon moo tax nga dugaat ci kër gi léegi kelee la problème boobu amoon nga keneen ku la ci wéttali waaye sax nag comme yow yàlla dogal na mission boobu nga am ci kër gi. dajale ruutale topp kaa faj nettali jaxase. waaw màbbalal kër gi. comme ni man nettalee topp kaa ba nga duggaat ci kër gi te def fi dégâts bu ne. déli nga fi def yow bi xam nga fan la waroon fekk ca miir yu gudd ya lay indil añ. man moom ndékki bi maa ko gérer mais kër gi añ lañ doon indi seen waa kër euh, añ reer. da ngay wax wala da wax wala. ñaan ñu ma la de dama lay laaj. sa mission bi am ci kër gi. Mm. doxal ko defal lépp tojal kër gi. yow loolu lay sa liggéey ci kër gi. waaw demal demal non bu dee daa am looy wax rek waxal kër gi. après si sa bos laa ñëw de. sëy bi à tout moment mën naa tas de comme ni fi toogee ni mën naa jeex léegi de wala ngaa fàtte loolu maa la fi dugal de fiis <laughs> yàqal nga ma booy. waaw Paate <laughs> waa code bi kañ moom heure boo ko dugalee rek man mën naa koo jëli waaw tëjuñu ñoom du duñ tëj. waaw ah, dugalal ma ko rek ko dugal naa ko jot incha allah waaw dinaa gën a dolli incha allah bu la dara naqari baax na waaw côté boobu mokk na yow foofu mokk na mbiru nuisette yeeg yooyu <laughs> waaw baax na waaw ok ciao ciao te ni nga mel si nuisette yow it <laughs> baax na kon du déggoo incha allah kenn ma yàqal man yëfu xadi bi dama ci waxat xadi moom papa sol nañ ko ba ma wax ak moom may ñàkk kersa tontu na ma tey tontu bu ma musta tontu mais du ma yegg ak moom fenn fi li ma ko wax na dégg na ko mais papa mais Pathé da leen servir un mensonge sur le plateau naan leen sama jabar dafa décédé c'est pas vrai jabar ji deewul am naa ci lu ma leer Pathé dafa jàpp ni man xaw ma ko que bi mu fi defee li muy def ba dem yoonam boobu laa teeloon jël sama disposition parce que xamu naa lu mel nii dina ñëwaat fàtte fàttelu dina amaat papa yow waroo fàtte pàtte dafa ñëw këm loolu dafa bëgg xale bi da koy takk nekk ak moom après mu yóbbu ko man leen déedéet nga maye ko mu jël ko yóbbu ko lune dem miel fàtte indiwul sax xale bi ci kër gi da ko bàyyi comme sax xale bi vagabond ba yegg si xati xale rek mu jël ko yàq ko bu amul woon assistance bi mu war a am ci sama yaay ci man ci waxtaan ak moom ci delloosi ko ma noonu ne xaritay ñàkk nañ ko waaw nit ku def noonu dem tey jii mu créé benn histoire am jël jabaram attan koo rey te deewu parce que xam na ni dafa war a ñëwaat fii vacances mu bëggee a utiliser Xadi yónnee leen xaalis pour préparer le terrain et il a choisi les bonnes personnes nga ni papa da ngay accompagner loolu xadi pour que mu dugaat ci say bopp te li wér te wóor mooy bu ko paate defaatee dara ñu fi toog ñëpp nangu tay sëy bi raxas seen loxo ñëpp nag sans exception papa li ma bëgg mooy nga dellu ginnaaw ci décision boobu parce que man su ma nee déedéet yow nga ni déedéet sama yaay ni déedéet xaalis du dugg ci sëy bi loolu laa bëgg. <laughs> dégg <laughs> kii kii li muy wax na ko dama bëgg jabari paate jooju nga ñaanal ko mu dem àjjana hmm. elle est décédée dee na yaa ngi dégg benn eh, li ngay wax yaa ngi erreur xadi kenn solu ko li ñuy bëgg ñun fekke wuñ ko li ñuy waxtaan ñun fekke wuñ ko man waxtaan ak paate une heure temps téléphone muy wax ju sérieux loolu amoon bul jàppe ne benn problème problème yi kayit la woon jabaram jooju bëggoon a yàq ay kayitam ci le vois souvent ñi nekk à l'extérieur ki ñu fa am jabar mooy gérer foofu pour ñu am benn problème il suffit que ñu dégg am nañ beneen jabar wala leneen dañ leen di indi problème te foofu kenn du fa laal jigéen kenn du fa laal xale loolu ma comprendre ko ma def investigation effectivement c'est mais Pathé amatul beneen jabar te Xadi mii la bëgg te bu ko takkee ci moom lay yem lim ma wax nag kii wax ma ko ñun bu ñu doxul doxu kilifa ñi ngi ci erreur noonu la deme et puis fii ne joxewu fi dara wax ay waxanaan wax mooy xaalis bi voilà. Euh, ba man bu defe naa ni ba léegi xale bu ndaw la ko mel ni ko am 15 ans wala 16 ans bu xamal ne yow kilifa nga boole ci directeur général d'une société. voilà waaye il faut un réfléchir nga indiwaat sa xel tuuti. Mhm. te xam ne lii. Mhm. destin la. yi dañ ko tracé démb. Mhm. nit munu ci dara yàlla moo ko tracé te fa mu ko tracé moo ko xam te nag bu tu intellectuel mhm. xam nga ne les voies du Seigneur sont impénétrables mhm. nit munu ci dara loolu aras la démb la woon du tey sëy bi mhm. takk nañ ko de te ñun suñu ñun ñi ñun ñii di bàyyi ah ta parole ne compte pas bu nañu wax di tëkk nag <laughs> sëy bi nañ ko takk <laughs> te la sama parole compté wul papa li nga wax dégg naa ko bu baax su dois réfléchir d'accord et je réfléchis bien avec la tête maanaam je ne je ne réfléchis pas en me basant sur un compte bancaire bien euh, gi yàlla dogal na. Mhm. yéen ñi ngeen taxaw. waaw xam naa ne su ma génnoon àdduna njaboot gi tas. lu tax kër gi jaxatoo ñu fi nekk torox. lu leer na ma parce que maa fi nekk du wax li nga xamante ni mooy dëgg benn beneen bi mooy li nga xamante ni mooy arrangé avenir u sama rakk yi nekk sama ginnaaw mais keneen ku fi wax rek à chaque fois boo waxee sa poche moo la tax a jóg wala say avantage wala yow sa intérêt bopp mais comme chacun défend ses intérêts crypto personnels man je sais que je suis malchanceux je suis entouré que de racailles et de ratés. Eh, pardon eh, Thiam lan mooy racaille. non ba attends ah, waaye mais ba kii booy bi. non non non non tekkil ma ba pare mu soog a continuer discours lan mooy racaille. amul ay racaille waaw maanaam dafa mel ni ay xar yoo xam ni ñii xar la yoo xam ni dañoo ànd ak ki béy boo nekk xar ñii maanaam daal. ay rey mu dee reyal mu dee yooyu daal dafa mel na nga doon demoon tabaski tey dem ca daral ba gis aw béy bu ànd ak xar ñu jurante mhm. ah, loolu mooy rey mu dee rey mu dee maanaam daal bëgg nga xamal ni yow daal sa famille ñëpp daal parce que ñu ay rakaay lañu daal non bul wax sama famille parce que euh, yaa ma mujj euh, ci maa yi waaye je suis entouré la wax donc ah. il a parlé au pluriel non non non dafa ah, ne non non déglu déglu dafa ne dafa ne je suis entouré de rakaay maanaam maanaam yow ba yow say jabar lépp ay rakaay lépp du yow say jabar ñëpp non il ma non waxuma ah, je suis entouré la wax tu es mon kii dafa réew. Ah, ah, voilà loolu mooy wax ci wax ci daal mooy. xam nga il est benn bi gis naa la nga jël sama caay ju bële ji. naan da koy nat mu seere la. nga defe ni maa ak yow yem déedéet yemuñu ñu dangaa pataa moo tax jotu la mais yemuñu maa ak yow te doo yem man ci fi may dox ak li ma ñeme am fitam doo fa eggagum ay noon bu ma dee woon yow avant ngay judd am na ñu fi yoroon seen baay yor ay kër ba ñu dee continué wu. wala yow boo dee àdduna tukki. yàlla dogal na man yor naa sama ah, baay. ba la war. sama man doomam yor ma ni moo la war. sama maam bu góor ba ca àllaaxira. yàlla mayu ko doom yor ko. dama dama ni ma man li may def doonuma ko. man man bi muy dund. dama ko man li may def. sama maam papa yàlla dogal na doonuma ko c'est juste bon sens. man sama bi muy dund. dama dama ko yor ba mu ñaanal. kan la yor yor ko ba suulal ko. gérer ko. la la fee fekk waaw mais yow bu yow yow fekk lu fi papa papa xale laa xam naa lu bari. papa tafa lépp la moom yow jamono yooyu ma wax la. sama moom tafa yàlla dafa dogal damaa am ku fekke man bu ma fekkal woon moom ñu rey ma. dama ni eh, wax na ma lépp li xew. eh c'est pas vrai. sama maam tafa xamal na ne ma man bu may jël référence moom mii nga xamante ni euh. mi ngi ci diggante dem ak ñëw moom mi mooy sama référence sama maam tafa tax na tey ji lépp lu ma jëloon nar koo def ci lu ñaaw sama diggante ak yéen ma bàyyi ko malheureusement maamam Tafa ji muy wax moom fi mu nekk nii nekk sax day naax. Ah, day naax moom da day naax. mais moom xam nga yow jamono am nga jamonoy transfert d' argent nga fekk. naaxaale wu sa maam ba ma ko yónnee ci pos laa daan def poste nga daan def xaalis ci enveloppe yónnee yow nag jamonoy trans moo tax mënoo fekkee jamonoy transfert d' argent nga fekkee. waaw waaye def naa lu ne. ngir sa maam il faut d' abord gagner de l' argent pour donner. xam nga lu la bëgg a ah, wax xam nga lu la bëgg a wax li la kii yàlla takk na ko ca aras muy sa sëy yii nga yor yow ak man mii sa baay ak ñeneen donc munoo ci dara ñun sa kilifa lañu. xale neex naqari danañ ko takk. neex naqari maye ko waaw ñu may neex naqari xale bi man ak moom. waaw dogoo nañ kër gi da koy waaye loolu du dogoo doon fen eh, man baax na eh, waaw dama la bëgg xam benn affaire yow est-ce que bëgg nga dugg àjjana ah. waaw que bëgg nga waaw que parce que yow daal xamal naa ko. xam nga porte àjjana bi caabi xam nga ah. ko ku yor. kilifa yi ñoo ko yore. yow gis nga bis boo jour ba. Mhm. dañuy tëj bi doo vous ne verrez même pas xam nga tëj ngeen ah, ah yéen la porte vous ne verrez même pas. ah bon ah, kaay ma wax la tuuti xam nga diplôme bañ def la DG waaye am nga beneen diplôme xam nga nooy xase sa baay xam nga nooy toroxale sa baay xam nga nooy xiifale sa baay yóbbu ko gettu bay waaye yërëm naa la dama koo gis ni sa sa safara l'enfer kii dee na ba pare kii du dugg àjjana dëggoo li ma bu non bu ma bu ma amuloon te yaa tax ñu sàkk ko waaw daf maa leer naññi sa safara. tu oses dire à tes pères rakaay. rakaay rakaay. lu toll ni tara ay na ci li ngeen wax. lu ma sax. la clé la. en tout cas caabaat na yéen ñaar waaw dugg. paradis. vous ne verrez même pas la porte. ah, ah bon ñun yéen vous ne verrez même pas seen jabar yi. sa jabar ji pap pas toi sa bu subaa dinañ la laaj. loolu yëpp naa safara papa sa jabar yi loolu yëpp naa safara. ba sa safara dina métti trop trop trop. kon safara xanaa yow bay jàmbur wa ay kii. non kii safaraam dina métti. dem dañ la la lakk mën na xam kii du dugg du dugg. non yow dinañ la saaf. dinañ gis ne yow. dina yërëm daala mais safara nag dina gis néew bu diis.